wax ni sunu woote tey bi mujib manam jigen ñi nga xamni ni and Ousmane Sonko jeune JPS magi Pastef Moncap Monep Domi Monap ak Monaf ñoo do bëgg def mouvement pacifique bu un mouvement pacifique ci version française bi dégg na ñuy wax autorisation doxuñu waaye kenn ku ne sañ ngaa sol lu weex génn ci sa buntu kër yàgg sa dëkkale walla say doom nga def benn vidéo bu ndaw dugal ko ci biir ñoom nag ci seen wax dañu jàpp ni vingt maanaam huit ci ngoon man ma doon ñaan su ñoom ñu mën a suñ ma ko mënee may ku ko mën yeewu sax suba nga lu weex boo ko mënee teel a def sax nga teel ko def waaye nag 29 mu gën a takkarnaase ñu ciy woo sénégalais yëpp patriote yëpp sympathisant patriote yëpp ñi bëgg Ousmane Sonko ñëpp ñi bëgg réew mi dox ñëpp ñu sol lu weex dajaloo def benn vidéo wax ci wax ju dal bu teey lañ ci soxla rek mooy ñu xam ni peuple Sénégal yëpp ci fii ak ci diaspora mangi ngi la diaspora ñu ko espérer fi nous la ko espérer en tenant compte de l'heure de décalage Nous tamit ñu def la même chose Nous duggal que ci ci ci bi ñu li ñuy lenn rek la mooy nañu doxal yoon kilifa gu mag juge wax na ñu cour suprême atte ni waa kaay ma yóbbu leen feneen ngeen attewaat kooku dàbbal ñu am jël Ziguinchor am jël Dakar nan ko nangu te jaarale mbir mi ci yoon jox Ousmane Sonko ay fiche am te jox ko attestation au niveau de la CDC mu bokk ci jogante yi yàlla nag mooy xam kii falu waaye ñun njort nañ ñu incha rabbi bis bu nu taxawalee ni ko waxee suba. mu am effet ba ñu jox ko ko inshallah li ñu bëgg donc ñu ngi woo Sénégal yépp ci biir biir réew bitim réew mi ku ko nga mënul bu nga sol sa say wala say am ngeen def vidéo wala audio ko ci réseaux sociaux yi gis ko ñu ngi bokk di sant ñëpp di gërëm